السلام في الزمان إلا بما من والعالم أحباب الإنسي كلما مالا من الجنوب قريب البحر أوسع دمع سراب محب الله غيره نكير الجسوم وإن قال عهد إن قال فقل له أنا حسان منيه له ما كنت حيا ولا أنفق الله لا لا 이제 딱. 부모님 다. 부모님. 아? 인신 부모님. 아? 내 오늘로 아빠 어머니 보다나 한미 보여. 아? 하나님 보여. 이거 봐라 말이야. tamay dem ci seen dëkku maam la ca seen dëkku maam fa laay dem jàkkaarloo Sidi Hadj Malick ni ko maamaat ñoo ngi yaa ngi sama bàyyi ma ni woon boo demee ba jàkkaarloo sa raw du maam yi nekk fay jàngal sa bopp tardel sa ndax booy wax li nga am doo far ma ne ko nu mun ma dama ko naan yaa ngi maa ngi ma dem ni ko maam maa ngi ma dem branché leen roof ma ma dem roof leen keroog bi ma sama bàyyi ci kii yónni billaahi wal kitaabi ci daayira ca saam mu ne ma demal nga waxtaanal man ñi ca ñaanal la ma dem ba ñu dugg mu ne ma sama yaram moo ma jàpp ma jógee ci sama néeg ñax ñëw di dugg si ci saal bi ci saal bi nit ñaa mbooloo mag waye ma dëpp ñu dab kii ni ma sama côté nag day yàgg ci saal bi ma daal di dugal jëmm mu ne ma wax da nga yàgg lu tax ma ne ko papa damaa mënta dem mu ne ma ma yónni la nga ni ma xaaral laa doon ma ne ko daf ma jënd jàpp ñii ma gis ñii ba ma fa rombi bu ma fa àggee musiba la mu ne ma lu tax ma ne ko ah ñii dégluwuñ ma yow la ñuy dégg xaaruñu ma yow la ñuy xaar bi ci topp mooy su ma demee dañ may ñaan ma ñu mën a xaw ma may ñaanee. ah boo amee li ma la jàngaloon ak li ngay dégg ci man man ko mën naa waaye bu ma àggee ñu dikk nag toog di la xaar yow yaay borom daal yaay borom xaas yaay borom naan boo ko sa xarit man bu ñu day déglu ma àgg si boobu di leen xooli bët xaw ma loo leen di ñaan ma leen jox wax ma ko boo ma joxee léegi boo ma picc rek ma picc rek te loolu la picc ka fayati demal wax la ñu ne waay mu fay وسلم والله azim gis nga sëriñ ak di koy alimenté yam bala nga xam seen njëriñ da nga leen di kos bi may jógee Sénégal dem Tiwaawan ziyaare ma génn zëwee maam Cheikh Hadj Malick dem ci sama ñoom rawdu papa ak sëñ Babacar ak rawdu yooyu ma romb ko di génn Tiwaawan rombaale sama rawdu Mor Cheikh keroog sama yaram dafa doon ma xool Seydi Hadj Malick mu toll woon ci jamono nga xool zëwee ba. nga xool kër bu rafet boobu daal kër bu mag ñu génne ko ci kër bu mag bank ko ci zaw yi nga xool sëriñ Babacar ñaari xororam yu rafet yi ñu bank ko ci diggante ba génne ko ci njaaxaalal kër état boobu ëtt boobu luñ fa tabax sëñ am doo ko taxawee kër bu mag la fa bàyyi ñu ko dagg yóbbu ci kanamu jàkk bi fekk wërale ko fa ay fekk Serigne Cheikh kër gu àgg ñu wërale ko ci ay segg sa papa ñeenti étage ñu ngi ko ràññ ci génne kër gi moo moom te dégg na bàq wu ne ñu ngi ko ràññ ci dugal ci benn loxo may woon yëpp du xool loolu. mu ne ku jaamu yàlla xam ne que lu yàlla neen ala kullu shay'in maa xala allah baaxul wa kullu naimin lahu ma daal gars yi dañu ragal yàlla te jaamu yàlla delluwaat ci yàlla gis nga. sore sore Sénégal ku mu tax nga def ni mucc nga ci bëgg yàlla yaa ngi nax tanaamu aynaaka wa aynullahi lam tanam la taxuduhu sana wala nawm lahu ma fi samawati wa fi ard alquran yàlla maa ngi xaar ku mën juróom benn weer juróomi at nga ñëw ci kër bu toll ni kër Seydi Hadji Malick fekk fa ku toll ni Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour nga yëkkati yóbbu ba pare gàllankoor bu ci wax ko Serigne Cheikh ba nga di ko nekk naan góor gi ci mu génn nga ñu ko rek mu yóbbu kenn wu ko juróom benn weer nga yenu Serigne Abdou yóbbu kenn wu ko yóbbu Serigne Maodo Touré kenn wu ko yóbbu Soxna Fatou Mansour kenn wu ko ku ko sañ. ku ko mën ah ah na yóbbu ñoon ci kër seen xajmaay ci diggante bu gàtt nga dem yàlla ñu dafa di fara yem mu di farax farax farax farax farax suñu wëy ñu yaakaare di ko nemmi ko teg di ko bànneexu di suñu wëy ñu sëriñ di waxtaan baa mu di ko ñoom ci yóbbu bu la yàlla nee dana la fi bàyyi da ngay sa bopp yàlla du fi bàyyi kenn te ku ko jaamu dugal maam Cheikh Hadj Malick radiyallahu anhu nee na man déglu leen ma tuuti déedéet ku seetu gëm da ngeen seetu du ngeen ñoom kon ñi yéen mënaluñ leen dara soobee yàlla yonent bi pexe yi leen yàlla jaarale ba ngeen jóge Sénégal ñëw fii pexe yooyu la yàlla di jaar ba ngeen am kii am xaalis nangu nit yor ngeen dem seen commune sama dara leen seen nag crise amul dañuy coow crise amul juróom-ñaari fan baaxal bu juddoo juróom-ñaari fan la ko doomam la ko la ko la ko ndeyam di dox juróom-ñaari fan une semaine boo amee sa biir mu judd nga ndaw ko une semaine dellu si ko xool war nga yaakaar àdduna man am sa biir daw ko juróom-ñaari fan joxoo ko mu lekk joxoo ko mu naan nga daw juróom-ñaari fan door a dellu ci di ñëw di xool ndax sa biir ba mi ngi dund wala dundul est-ce que yaakaar nga àdduna ka ko fa fekk ci biir tàgg ba te juróom-ñaari kaw yi la nee war naa laa mën ko mën a gëm